asalaamualeykum Cheikh Cissé mi wax naa leen ne fa soxot ngeen foog ne man may wax rek billahi da ngeen xam ne man ami ku ma seet ci askan bii ba ne ba ne la kii nangam boo ko weddee it nga koy weddi rek waaye li ma la wax boo ko seetee lu ci bëri danga ko gis seex Cissé mii vidéo yi muy def vidéo yi soxot la vidéo yu bëri yi muy def foo koy def pour soxot pour yàq askan bi mbala di ko def pour jël jël xam lum jëlee ci askan bi askan euh, you know xalal wala dara even xam-xam vidéo yi muy def yu ci bëri fa koy def rek pour nit ñi topp ko jaamu ko su ko defee mu mën a jëlee ci nit ñi xalal moo tax muy jaay garabam gu bon gi muy jaay noonu garab yi laalanteem gu bon gi muy jaay ak garab yi xawra yi muy jaay noonu waaye gi nga seex mi wax na leen ko it boole ci ay yoon yàllaa ko natt mu di ko wax xaqi nit ñee ko dal mu taxaw ne leen may def vidéo rek pour nit ñi di ma déglu faalewuma askan bi man niti intérêt laa moo tax bu ñëwee tey di wax pour jigéen ñi torox ci sëy taxaw ne jigéen ji sëy sa jëkkët lu manti def baax na yow su guddee na nga dem summee ko nangam taan ko rek ngeen juboo su xeboo jëkkër ja bon su xeboo jëkkër ja di di di njaaloo di la indil feebar di la sàggane sa xol bi dagg bu ngeen jotee bu guddee na nga dem summeeku rek nangam taan ko mel ni caga bu dof moo tax muy wax loolu ba pare ñëwaat di wax ne moom bu gudd gune goo xam ne xamul dara jigéen ju xam dara lay wut parce que moom jigéen jox xam ne xamul dara suy tëdd ak moom euh, kooka euh, fa koy yërëm fay métti fa koy yërëm nangam nangam te fay fen fii la demoon Gambie jël xaalis bu bëri def ko ci gune gu ndaw fekk gune ga ca école ba dugalanteek moom jël numéroom dugalanteeg gune ga wax ak ay waajuram dugalanteeg gune ga ba takk ko di ko fay di ko fay xaalis di ci def ay junni junni junni junniy Gambie gune ga màgg nag ñu gune ga war a ñëw ñu ji ñu war ñu war koo jébbal gune ga gune ga ne ko bugguma la mu yóbbu gune ga tribunal noonu la defoon ne ci xibaar yi ñëpp di ci wax yàggut si la si la dem senegal ñu dóor ko noonu mu doxee ci senegal xam ko noonu loolu yàggul xaajut ta yàgg bim mu siiwee ci gune gi ci mbiri gune gi mu takkoon noonu loolu yàggut xaajut a xaaja waaja mat juróomi at laaj ko nit ñi nga xam ne yëgoon nañ ko ñëpp ko yëgoon mu ñëwaat ne bu gudd gune moom jigéen ju xam dara la bugg bu dee gune ga fañ ko yàq baax na bu dee gune ga fa sëyoon ba tas baax na waaye moom jigéen ju xam dara lay wut bugg gune yi dof yi nga xam ne ñi nga xam ne ndaw yàq seen ndaw wala jigéen ñi yàquta dof di gën a yàqu di xalaat naan maasam yi bëri nañ te moom maasam yi xamut fay fen waaye also maasam yi bu fekkoon xam na it bëriwut gis ngeen askan bi fi bi fi Sadio Mané xamee gune ni góor ñi génnee di xas ni ñi naan ku duhut gune duñ la takk góori askan bi de ak bugg gune ak bugg ndaw te ndaw gi nag ñoom ñu bari ñu bon ñi ne bu boo xamee ndaw it ci lañ lay gën a def xañ waaye gis nga kii ni mu duxee jikko ju bon ni mu xamee jikko ju bon bay macc banaana ci vidéo yi mu doon def tama doon ko xas mu ñëw naa ne ba nga duxee gune ngaa sëy moo tax nangam nangam ngir góor jigéen gi muy jàngale ci vidéo di macc banaana si ko yuuxu ndi bugg a yàq doomi nit ñi fa soxot vidéo yu soxot yu yàq askan bi lay def moo tax muy focus si waxi laalante yu bon aka focus si jaay garaba xajam góog ak yëfi xajam yi muy def rek te garabam gu bon góog te fen waaye gi nga kii soxotam gi du ko mën a nëbb xoolal kii moromi góoram bii di sonko ñu tuumaal ko jàpp ko tëj ko te sonko li ko dal man koo dal moo mën a dal keneen ak keneen moom bam neewoon Gambie fa tëddoon ay gune London koona waa koñ ba yëpp yëg ko gune ya màgg nañ fañ may kool di ma wax mbiram di wax ne fañ bugg a génn wax pour moom àdduna si xam lim leen def because saa wuñ ko gisee muy wax seet fa ñuy fàttaliku lam leen defoon te waa koñ ba yëpp yëgoon nañ ko waa kër ga yëpp yegoon ko lu siiw la woon gune yam tëddatoon London koona na ñoo ñu wax dana tëdd yeneen gune te moromam ñi tëdd gune yëpp xàq gi yéen ñi tëddoo ta du ngeen ko wax yéen a koy gàddu magi jëmm ngeen surtout yéen ñi xamee doom war a sàmm gune xam ngeen li ci doom soo gisee nag kii xam sañ-sañi soxot gi ne ci moom askan bee ko ci ba kii génn moromam mii di sonko ñu tuumaal ko tëj ko li ko dal man koo dal moom li dal sonko mën na koo dal moom mën naa dal keneen fii ba bitim réew fii ba fu ne jigéen tuumaal la ne gaa daanu suma kaw man nañ cee tëj ku ne man nañ cee jox jox ku ne criminal record loolu bu la ko jigéen tuumaalee fay naqadee génne waaye xàqi sonko bu dalee yéen ñu bari bala ngeen a dee da ngeen ko gis mu taxaw ne sonko bu tax sénégalais yi di di di di di di ki ki sonko taaj nii ne pour mu toog bu ko sénégalais yi wateel ngir ne kooku fa war a toog hubbi sonko loolu jaru ko nañ sonko jarul lool kii te kii du mën a xamee réew mi te kii su su toogee tijji sonko ñoom ñaar ñuy liggéey loolu baaxul daal xola waxi xañaani soxot yu bon yooyu fa xam ne kii bu toogee tijji sonko ñoom ñaar ñuy liggéey Sénégal dana barke te du tere Sonko su buggee toog moom sax dana toog ni ñu wateel ko ba tey wala ñu continuer di liggéey ñoom ñaar senegal dana barke xam ne ko fa xañaane senegal lool xañaane Sonko toog bi te moom ci boppam nag bu sañoon mooy toog fam ko xañaane noonu wax na ne vidéo mi li muy def ak ni muy wax yëpp moom dara safu ko xalaat rek lay wut ci askan bi moom niti intérêt la wax na ko live ci ay vidéo yu dul jeex ak di ko jëfee ngeen di ko gis waaye askan bi moo bañ boppam askan bi mboolem nit ko bañ nit ku koy use pour xam xalal di ko jàngal lu bon nit ko lay jël di ko promote moo tax ngeen di seetaan sonko jógu leen wax jógu leen dimbali ko ndax di seetaan façon ngi nit ñu soxot ñi taxaw di wax pour sonk gën a torox ñuy wax muy de vidéo naan bu leen wateel ki sonko taaj baleen Sonko Sénégal mu ëpp Sonko Sénégal moo gën Sonko ay Nelson Mandela man de ay ay ay ay ay Serigne Touba ay ay yu kenn xamul yu mu doon wax naan xaw ma kan ak kan ak kan ñooñu bañ deexee it conti si mu ngi continuer ba tey maanaam di wax ne Sonko bu deexoo ne àddina si fay continuer ba tey yàlla tere. xëy néeg la borom a say fanaan nag Sonko nim nexee di liggéey si jàmm ngir bugg askanam ba loolu indil ko coono bii ndegam moom la loolu di dal. surtout yow sa maas yi soxot yi di yéene sa moroom ñi musiba bi Sonko ku ko yërëmul ci situation bu mu ne nii mën jog wax te xam ne lii mën naa dal ku ne nga ba ko waaye di wax pour mu gën a torox ubbi sa gémmiñ bay wax te xamoo dara loo wax pour torox tànde dakk ci askan bi waaye ngay wax pour torox tànde gën a xam ku koy def du la jig yéen balaa ngeen a dee da ngeen gis seen mbon gi xàq fay yàgg yàgg yàgg yàgg balaa ñëw yéen fay yàgg ba nga ne xàq gi du ma dal waaye dana la dal de képp kuy xubbi gémmiñam di wax ci askan bi di wax pour askan bi torox gis nga torox taane gi fi ne gis nga injustice bi fi ne gis nga nit ñi dund luñ war a dund mënoo wax pour mu dakk waaye man ngaa wax pour mu xam pour mu continuer du la jig ndax fi nekk ni magi jëmm lañ te jàng nañ àdduna te xam nañ lu jaadoog lu jaadoog mu ñu nit ku ñuul lii nag moo tax duñ ma sa barke ndax ñun duñ jóg xeex pour ñu barke te keneen kuy xeex pour ñu barke keneen di la xeex ne bu bul xeex xañaane la yow sa gëm sa bopp gi ak sa gëm sa askan bi énergie bi ngeen di jël di ko def ci wax yu bon pour askan bi yàqu su ngeen ko doon def pour askan bi xam jàmm nu ko doon barke nañ bu yàgg lii lii ñaaw na ta tàng xol lii Sénégal na su ngeen jàngut ci Sonko li ko dal nii te ngeen jàng nu ngeen di waxee dëgg ak nu ngeen di protecté Sonko ba mucc xàqam duhut ne rek moo leen di dal xàq ñi dee ci mbiram yëpp dana leen dal tey yàlla dana leen nattu ngeen xam président bu bona bona bona bona bon bu leen Sonko ak nitam ñi rawee da ngeen xam président bo xam ne ba ba ngeen di dee du ngeen ko fàtte bu leen Sonko ak nitam ñi rawee man Ami Diop su ma dundee su ma deexee da ngeen ne waxoon naa ko duma bett nag bu ngeen sàgganee bam raw leen duma bett na ñëpp jóg wut seen carte d'identité jog defanteeg Macky Sall wax ko dëgg mu génnee al élection bi nangu ko mu xam ngeen wateel niki sonko taaj ni ki hubbi sonko mu liggéey ak sonko bu sonko yàlla ne dana do président dana do président su boobaa it ni kii xajal ko mu do président bu juróomi xatam yi jeexee ngeen wateel sonko mu toog Sénégal mën na nokki continuer développe te su bala moo toogi dana fekk muy liggéey ak kii juróomi at yooyu yëpp mu liggéey koo kii su boobaa su wàccee mu continuer di liggéey ak kii ak ñeneen ña bugg liggéey ak moom su ngeen ko defut xaqi Sénégal dana leen dal gune ya fay sonn ak jigéen ña fay sonn ak nit ña Sénégal dana gën a sonn Sénégal bu ngeen reppee bam raw Sonko ba duggaat ci niti Macky Sall yi wala keneen nit ba ba ngeen di dee du ngeen ko fàtte